sëriñ bi dàkkul nu mboolem luy taxub xola wow ak luy waral xola dee ak lépp luy taxa mooy sëriñ bi dàkkul nu mboolem luy taxub xola wow ak luy waral xola dee ak lépp luy taxa mooy te may nu luy tooyalub xol faw wa kay rafetal nag njortu tey sawaral ay cër di taxa nite wey ni deenu may faw kay wan luy waral sunu xol di sedd kay nux nuxee kay bég ci yow ki nu may guddee ki bëccëg lu ci ñëw nay ñëw ak sunu mbég taalal nu far taali mbég yoo xam ni dootuñu fay tey ak ëllëg nañu nuy ñee nun bañee ñun sunu ñuñ te may nu may ñi nu soppit faw cant gu réy teek ëllëg nañu nuy ñeenun bañee sunu ñuñ te may nu may ñi nu soppit faw cant gu réy ñoŋal nu nun bu nu ruural kenn lëf bu nu kenn ruural lëfit far nu sellal may nu mucc gu way tabal nu ci cant ak yërmaande boole nu duy faw ak njariñ ba nu fees ak ay njariñ yu nu doy notal nu soppeeki noon ak bépp lar bu nu gis te not nu ci aw ndigal fawit ba dee fi nu roy jubal nu may nu ñu jub nuy def lu jub di ko wax te sax ca faw ba yàllaa kiy laram di nu way bu soppi ku jamono ku yàq jëm si ci nun loo xam ni te noo ko ci jikkoo ki jëf nanu moy noo ngi ni wét ni ak maaxus te ñeelu nu lëf lu dul sa yërmande ji nuy seeni yow sunu ndey bu nuy bon ak bu nu baaxee lépp far nu yërëm te may nu ndimmal lu rëy luy dolli gëm fegu ay xëy noo ki cant ki ndimmal gontu noo ki ngëm te far fanaana ki mbég may nuy ndamit sog a xëy tabbil ci man ak ci kër goo xam ni maa ko defar tefar jagal ma jagal saa gépp kër bu ma jay man yaa di ndaw si ma nopp yal naa di far wi nga nopp yal naa di far wala léppam saf ñu far la ko may yal naa la sopp bu wér yal nag ma sopp bu wér yal naa la jublu bu wér yal nag ma jublu bu wér yal naa la sopp bu wér yal nag ma sopp bu wér yal naa la jublu bu wér yal nag ma jublu ba tey mbind ak cat ak lépp luy jur sikk yal na nu mooy lu nam ma tee dox sunu diggante jàpp ko rey reyal nu luy teenu bég faw ak lu nuy taxa mer tefal nu nag faw dàkkul nu moy ak aji moy sëriñ bi daa nga nu may ak cant may nu ko ren te boole nooti ca ñay xalsee te fekki déwén sëriñ bi daa nga nu may ak cant may nu ko ren te boole nooti ca ñay xalsee te fekki déwén doleeti nu mucc ak xéewal te may nu bu wér nuy teewe jépp déwén tey yokk faw wa ko gën doo jeele doo jeele yaa woomal te far tabe nag jagal nga ñépp te jag lii tax ñu teg la fi nun yàllaa nu bëggalu yiw yàllaa nu fàggulu yiw moo tax mu teg la fi nun nuy raasu yiw fi saron yal nang fi yàgg nu yàgg ak yow te aw sa ndigal awloo ko ñépp te sut nag ñépp tur aku fan loo daa mébét ci sa digg ak yàlla yegg na yow lu nuy mébét sunu digg ak yow na yegg ci kun te bépp lar bu ma bëggal jàmm boole nu jox jàmm ak tiraanga te may nu mucc nag ci lu bon nekkal ci mboolem sunuy wet wër nu kapp ku yiw taxaw ci nun ba nuy yegg ak jàmm fépp fu gën fegal nu luy doge faw ak képp kuy doge it te def nu dogkat bu lëf dul jéema dog du ko man te may nu dooley saxaar ak wér ga nekk ci doj ak way gi jant bi way ci fenk man nga yéwén maa ñàkk lépp nga am nag lépp maa ngi fi yow di seenu lépp li may bon bon faral ne ci man saxal nu ci mucc ak wér ak njariñ aku yiw te at mu ñëw nanu yokkuk jub te teewe déwén bégal nu ren ak déwén ak mépp at mu nu jëm te may nu nun ñépp nuy yokkoo ka fekke déwén sarax nu malaanum cant ak suturaaku yiw te boole ca mbubbas ndolla nag tubayes ngërëm sarax nu malaanum cant ak suturaaku yiw te boole ca mbubbas ndolla nag tubayes ngërëm te takkal nu néegu barke ak jàmm ak njariñ xaral noote baaxit may nu ndolleen lu am xoram danga saf te say wax saf sa jëf saf nga njax lafit te boole ngor ak njàmbaarakuk tabe doo te xam dangay jenn waajoo xam ni boole nga ñépp not ba képp ku nangu dëgg jébbal na lay biram yoral ma samay mbir ak mbirum ku ma jox mbiram te dox sunu digg ak jépp lor ak moy ak tilim te def nuy murit yuy sant faw yu dul tawat yu deeful tawat yoo xam ni faggul nga leeni ndam sunuy pexe ak mboolem sunuy bir a ngi yoral te may nu pexem baatin mu jub mu nu dolli gëm te yàkkal nu yàkku mbég bu yéemu bu sedd xol bu tax ñépp ñeenoo ñee ba ñëw ni fi nun goram safal nu ci yow mi may nu xet gu bawoo ci yow gu ñuy jóg di bantum réew akum réew a kay xalam safal nu ci yow mi may nu xet gu bawoo ci yow gu ñuy jóg di bantum réew akum réew a kay xalam safal ci nu nit yow mi nu saf la nga saf nu nag nu far di sa ñam woo xam ni moo dàq wépp ñam doxal sunu digg ak lépp loo xam ni lii du yow te boole nu faw ak yow dugal nu ci saw yaram dugal nu ci sab xol faw ak ci sa kër bu wér te guddal sunu fan may nu yërmaande ak ngërëm dugal nu ci sab xol faw ak ci sa kër bu wér te guddal sunu fay may nu yërmaande ak ngërëm mbég muy tax nu bég ñi nu sopp bég ñi nuy bañ di ñu ramtoo ka yuuxoo ka miccitu sarax noote mbég muy tax nu bég ñi nu sopp bég ñi nuy bañ di ñu ramtoo ka yuuxoo ka miccitu xëyal benn bis ubbil nu bunt bu sedd xol te jox nu lu mbooloo mépp bokk di làmbutu te dundal sunu diggante leeral ko nag na ñax notal nu fu nuy nekkit ba kenn du fa yëngutu tabax noo ki doj ak weñte boole ca far simon nu def sag tabax goo xam ni ñépp da koy moytu te def nu tabax goo xam ni waaju ca dal ni woy ku may wallu dee naa nag sama resa ngi watu musal nu ci fett ak toj ku nuy bëgga toj na toj rajax xel ma dee muy dox di wax tooka jabbutu musal nu ci mboolem lor ju nekk ak ju dikkagul ku nuy bëgga randal lëf na mujj di randutu ku bëgg nu toppas lëf na topp ca àll far nu gën faa amuk yaatal ñu far gën mu faa watu ku nuy jëme lor delloo ko lor jëm mu jël te muñ bu lor jëm ci nun yaatal nu boole nu it saytu faral def nu gàncax nun gu la fi weddatul gu sax gu am mbay te teggiw mar akum ndog akum natu saxal nu bu wér yow loo saxal loola sax bu wér ku bëggul nu sax nay suufe faw ak a bokkutu te yal na nu gudd fan sunuy soppe gudd fan ci barkeb Sëriñ Tuubaa ki te nun nu meccitu te yal na mu gudd fan sunuy soppe gudd fan ci barkeb sëriñ Tuubaa ki teenu nu meccitu ma dimbali ko man yàlla ay yonnenam ba tey ba sant sëriñ Tuubaa te ñaanal ko wépp yiw ma dimbali ko man yàlla ak yonnenam ba tey ba sant sëriñ Tuubaa te ñaanal ko wépp yiw defal na ma luy waajur mënul yal na am lu rëy lu seddub xolam foofee mu nekk lu ñépp naw te yal na xolam seddit ci nun ñii mu wacc dem te yal na nu wacceeg mbég mu tax ñépp ñëw nu ëw te yal na mu cantit ci nun ñii mu denc fii te yal na nu wacceeg may gu tax may gu nekk ñëw te yal na ko yàllay xëppi yërmaande sépp saa te teeyal barab yépp ak sunuy xol xelaw xelaw fabal yàlla jàmm ak yërmandeeku yiw ak njariñ joxal mu sëriñ tuubaa ki tax ñépp xam la yow fabal ngërëm ak jaaraama joo xam ni dootu deñ joxal nu sëriñ tuubaa ki yee ñépp ciy nelaw fabal canti cantak mbég yu ëppum xel ak xalam joxal nu sëriñ tuubaa ki tax diine xëy taxaw fabal may yu deeful takkakay tandalee kalim joxal nu sëriñ tuubaa ki tee ñépp rus ba sew fabal ndabi tawféex ak tiraanga yi feesa mbég joxal nu sëriñ tuubaa ki tee ay wu nekk xew fabal pal gudul deñ mukk mukk te dootu nax joxal nu sëriñ tuubaa ki xëy fam nu teg ca kaw fabal lépp luy tooyal xolam ak lu koy seral joxal nu ko faw ak ndam te may nu ci moomu yiw fabal lépp luy tooyal xolam ak lu koy seral joxal nu ko faw ak ndam te may nu ci moomu yiw ne mbooloo mi xam tey jii ni yow ban balaa gërëm te yow rekk laa santit te yow rekk laa faral ne mbooloo mi xam tey jii ni yow ban balaa gërëm te yow rekk laa santit te yow rekk laa faral te yow rekk laa àndal te yow rekk laa safoo safoowuma baay ak ndey safoowuma yit alal danaa weesu baay ak ndey te weesu itam alal ba ñoo jox la saa bopp ak sama jur nga boole jël dama boole mbooloo mépp teg fële ngëp ci yow nga jox ma lu gën mbooloo kërëcc du man asal lafaat ak lafaatul lépp fam nga ko jox ma man ci sag tabe yow yaa mat di jëndee la kay bégal fegal ngan fegal ngan mboolem luy lor ak lu amul njariñ te ñoddil nga nuy cant ak njariñ yaa ko seddu xol fegal nga nu mboolem luy lor ak lu amul njariñ tuñaddil nga nuy cant ak njariñ yaa ko sedd xol sarax mu sarax mbooloo mi gudd fan ak wérug yaram ak lu nuy jaamoo ka sant di aw ndigal notal nu mbërëg xiibon notal nu sunuy bakkan notal nu ndaw ak mag faw yow notekat notal notal nub sëriñ ak cedd ak jinne not gu wér musal nu ci saytaane ci fiiram ya muy raxal notal nub sëriñ ak ceddo ak jinne not gu wér musal nu ci saytaane ki fiiram ya muy raxal saxal nu ci mucc ak jàmm ak xol bu sedd nun te dollu nu naataange ki cant ki xel yu dal lu neexul nanuy mooy faw tey mooy ñi nuy jëfal lu sopp nanuy dal faw tey dal ñi nuy jëfal lu dul mbég bu ne ñokket na teg gi sunuy barab te mooy nu te mooy mboolem ñi lay soppa kay teral raxas naa samay dab jox la yow ki ma daa duyal duyal maati saa dab yi ba ñuy yem ba tan njariñ raxas naa samay dab jox la yow ki ma daa duyal duyal maati saa dab yi ba ñuy dem ba tan njariñ na yépp ni dell ak barke faw ak mbég ak ngërëm ba dab yi ma dendal sax ni dell ak lu am njariñ jañal nu lorañ ñàkk ak lu ñuy bañ ñu teggi wéy tefar jañ nu am koom ak wér ak dund ak njariñ na mboolem lu ñuy wut am fi nun faw sax fi nun ba koo gis di jàngu yiw fi nun faw ak njariñ bu saytaane ak lor jëm ci nun mukk senn saa bu taw féex akub jub-jub fi nun mukk ak njariñ musal nu ci mbind ak gémmiñ ak wépp ay wu jóg te dox sunu digg ak lépp lëf lu amul njariñ pexem ay mu jóg yàqal ku jóg yoru ay di ñëw balaa ñëw na dëppoo ay wa dëpp ak lu dul njariñ pexem ay mu jóg yàqal ku jóg yoru ay di ñëw balaa ñëw na dëppoo ay wa dëpp ak lu dul njariñ te yow nii lanuy làqoo baraw nag lor ak lu bon te jot ci yiw ak sag cant faw ak ndam ak njariñ ñagal wër nu kooñ ak wër ko mbàkke xelam ma dal xolam sedd ngir dootul fasee ki mbég ak njariñ dugal nu ci sam ñag nun tefal nu ci biiri mbég sañag bi na nuy wër kapp faw ak sunuy njariñ dugal nu ci sam ñag nun defal nu ci biiri mbég sañag bi na nuy wër kapp faw ak sunuy njariñ sabar kene ànd ak nun te nekk ci nun bu wér te mboolem lu nuy yëngooti nuy tonu ak njariñ baril nu te barke alal sunuy jëf te dolli nuy karaama yu làmboo may yu dul jeexe kiy njariñ ma jóg yeesa lub cant ak ngërëm moo rafet ci man dama gis ñu géppuk cant war te ñu suufe ma ma jóg yeesaluk cant ngërëm moo rafet ci man dama gis ñu géppuk cant war te ñu suufe ma ñi fab seeni mbir jébbal ma faw bu ñuy gërëm di sant ku xam ma nii na may def ba santu ma te xam naa ni yàlla am ci man yërmandeeku yiw fegal na ma béppub coona fal na ma yor na ma fegal na ma béppum nattu jox na ma ab sëriñ bu tedd ak njabootug cant man yàlla wëccu ma rafet naa ci moom it njortu xam naa ni man na ma defar ba ma jag baaxal ma sellal ma sàmm ma damaa feesa feesa damaa feesa kuk bon dell dell ak lu ëpp wax mu feesa ngëneelam dell dell te jublu ma damaa feesa kuk bon dell dell ak lu ëpp wax mu feesa ngëneelam dell dell te jublu ma damaa ñàkka ñàkkit lépp lépp baawuma lëf mu am nag ba ñàkkul lëf ni cas yëf ya xëpp ma gërëm naa ko ngir am naa samay kem yu dee ba jee ma des fi ba tey jii man te dee woo ma wopp ma gërëm naa ko ngir am naa samay kem yu dee ba jee ma des fi ba tey jii man te dee wu ma wopp ma te am na ku juddoo judd faf rekk dal di dee ñu suuli ko faf réeréew turam li le bir na ma dangay gis ku faf sax dee ca biirum ndeyam ba cey ñu xajjil ma yii yépp ak yu dul yii xañeefu ma xañeefu ma wërsëg man xañeefu ma wenn yiw loolee fu ma yal naa sant yàlla mu sant ma te yal na sunuy xol sedd guy yi nu gudd fan te wér sopp mboolem gaa yi yàlla ñu sopp ma ci bunt bi laa xal seeta nekk ba dee fi man te loo wax wax ak loo noppi noppi ma sax fi man fi bunt bi laaxal seeta nekk ba dee fi man te loo wax wax ak loo noppi noppi ma sax fi man fegal ma ku dul yow faw wakas mbuntam ak yëfam te doy lul ma wëllis gaa yi ban yépp ak yi gën farag naa ku dul yow faw wakas mbuntam ak yëfam te jublu ci yow faw ak sa bunt bi fal ma kun te def ma ku yokkoo yokk yokk gu ñépp xam musal ma ci gépp jëm gannaaw ak lu jëm ci bon tamay nu ci sagtab yaari ajjana may gu wér naam jur gudul xaaj ak ngërëm sut ku nekk fan wéral nu ci yow ci nit te may nu wér wi yaram nu ëpp ci nit ñépp xaalis ak diine faf ca man te àddina ji mboolem ku rëy ku ci dee fi ñee na wàññi ku ñee noo ñee ba jébbulu faf ci nun bu bis pénc baa mboolem ñu rëy ñi fa dee fi ñee nañuy ñee sunuy dongoo ka làqu fi seeni ron tetin ma ci saa bopp ak ku jàpp ci man bu wér tetin ma ci ñéppam def ma fawu ko dee fitin te jéggal mu jéggal gaa yi nuy topp seeni moy tafar seeni moy yépp ak sunuy may fegal nu fen te jéggal mu jéggal gaa yi nuy topp seeni moy tefar seeni mooy yépp ak sunuy mooy fegal nu fen yërëm mu te nangul mbay mi nangul nu jépp jëf te nangul li nuy ñaan ak li nuy jox ñi nuy géttan musal ma ci béppum nattu dàkkul ma ay wujub mu teggi ma géppuk teggi teggi ci ñi sës fi man musal ma ci béppum nattu dàkkul ma ay wujub mu teggi ma géppuk teggi teggi ñi sës fi man bari wax ak bari nelaw tëggeefu ko doo gis ku ne faa moo fi gën bari le ko bari wax ak bari nelaw tëggeefu ko doo gis ku ne faa moo fi gën bari le ko noppil ba gis lu mat a wax nga wax ko yow boo ko gisul nga bàyyi kon nga amu yiw yow boo fajul dara na ngay faje dara boo tekkiwul dara na ngay tekkee dara fajal sa bopp door a jóg faji dara tekkil sa bopp door a jóg tekki dara sëriñ bi tey lu tee ma faj fajal ma ko lu tee ma tekki dara it tekkil ma ko xam naa ni maa bon te xamit ni maa ayib xam naa ni yaa di kay fajug bon ak ayib xam naa ni xaw ma lëf nga xam ni xaw ma lëf ma xam ni xam nga lëf nga xam ni xam nga lëf xam naa ni aw ma lëf nga xam ni aw ma lëf ma xam ni am nga lëf nga xam ni am nga lëf xam naa ni bëgg naa la fit nga xam ko ma xam ni man nga maa joxit nga xam ko te maa ngi nii di la dagaanaka wayaan sarax ma lii ma lay dagaanaka wayaan jógal te dem ku nar a dem dana la jot moo gën di waaree ka xuloo ka woowu nit jógal te dem ku nar a dem dana la jot moo gën di waaree ka xuloo ka woowu nit waaral sa bopp yow te waarit ku la jot ku la jotul bàyyi ko muy def la mu jot yàlla la ram bu mu fasoo jubal mu jub bu mu fasoo wula jubal booba du jub yonen ba jum na ku ko topp jum na seytaane bon na ku ko toppit bon na sëriñ bi gën na ku ko toppit gën na ngiram miit jum na te yaana wér na bind na wax na def na digle aw yiw ku jekki nag mel ni ku tax sa bopp yow ku réere yàlla réere waaye yàlla moo jaa ku koy ràmm ëllëg fa yàlla ku toppatul yàlla na toppi waayam mbaalu ko dal bu mu ko xul falaayam defar nga kër gi gépp tey géppuk defar gaawal te toppe ko ndigal balaa xar defar nga kër gi gépp tey géppuk defar gaawal te toppe ko ndigal balaa xar kër bu xaree te xam ni kenn toppiwu ko ka ko defan waxtu wu dee jóg yenu ko sëriñ bi num fegal nu géppug muy ndigal fegal nu it yenu kër ak géppug mbugal yéene ne noo mel na nga bëgg ku na mel may nu nu mel melow sedd yow sa xol sa xol bi buy sedd sunuy xol sedd yal na sa xol sedd sunuy xol sedd sedd nga mbàkke sunu xol yi guy yi yal na nu sedd faw sab xol guy yi am nga sunuy ngërëm bu wér yal na nu am nag sa ngërëm nu lu kenn masula am am nga sunuy ngërëm bu wér yal na nu am nag sa ngërëm nu nit lu kenn masula am yàlla na yàlla féq féq saw fan yal na nga féq féq it sunuy fan nuy dund ngay dund sa xol bi sedd sunuy xolit di nux nuxee ka sedd àddina ji bu nu fi seeru wenn ay fanu jëmit bu nu fa gis lu niru ay nanga nu may jàmmi teeg ëllëg nun te bu nu gis teeg ëllëg dara lu bon fegal nu loo bëggul ba dootu dikk lu yàgg yàggati te may nu gi yegg féqal nu it la nga gërëm ba dootu dem lu yàgg yàggati te may nu lépp ndam man maa ngi jóg yalwaani buur ak waa këram ñoo am lu rëy ku ñu may nga xam loo jortuwul man maa ngi jóg yalwaani buur ak waa këram ñoo xam lu rëy ku ñu may nga am loo jortuwul ban baaki gaayam laa fasoo yalwaani tey ndimal ak yi barke ki yërmande ki pal yow bamba ak barkem ñi lay jox seeni mbir ak seeni jur ak seeni doom ak seeni xol def ma murit bu la gëm bu dul yokkat ci yow may mag cofeel ak itte faw ak aw ndigal bu ma soxla woo bu ma itte woo bu ma bëggaam ndare loo ma tànnal yow ki xam ak loo dogal def naa la ndey def naa la baay ak ab sëriñ def la xarit def naa la kër def naa la njël nekkal fi man nekkal ci man bul jóg fi man bul jóg ci man dëkkal ci man far may bëggal jàppal sama xol ak samay cër boole far tabal ci gaalu cant may num xel mu dal dalalal sunuy xel leeralal sunu xol bu wér leeral sunu diggante nuy jub tey jubal yaa doy lu may nu doy lu faw ak yëf yu doy doylul nu wëllis ñépp ak seeni alal saa dund gi may dund nay dundu njariñ goo xam ni moo gën ay nawet gën ay kuréel na nga guddalit sama fan wi may mag pal gu réy ci sa barke ak barkeb sa gaay yi lay lay jëfal mboolem ku lay yaakaar akay wut say ngërëm may koy ngërëm ak mbég mu rëy mu mu séenuwul ci sa barke ak barkem ñi lay wóoloo ko gëm giñ naa ni laa seenu lu rëy lu ma jortuwul loo xam ni daanaa ko sàkkoo kay dagaanaka wut lu dul sa jëmm ji loolee maa ngi koy tuubi loo xam ni daanaa ko sàkkoo kay dagaanaka wut lu dul sa jëmm ji loolee maa ngi koy tuubi lu dul sa jëmm ji loolam ndog la rekk mu rëy te bëgg lëf lu la mooy ak mooy la naa tuubi ab lar bu bëggee lu dul sangam ba ak ndigalam ak mooy la bëgg ku bëggum mooy na far tuubi tey maa ngi tuuba ka sàkkoo mel na sedd sa xol fasoo na ma saxalit sa toppakuk tuubi mboolem li wey pare naa ko tuuba ku rafetal fasoona ma tàmbalik sellal akuk tuubi yaa set welas mësulaa dox sax fu taq lu bon setal ma ngir yàlla man mii taq bay tuubi defoo lu bon mësulaa def benn bis lu warul te waa ju dul yow defoon nas lëf lu muy tuubi kenn mës la joxe yàlla ak xam benn bis ndara yow giñ naa ni giñ naa ni wax ji soxlawul tuubi yaa xëy ni domm ngerum yonen ba tey wéewéy ba yegg rekk nga del si yóbbu kuy tuubi moo tax ku teete ak yow kooka am ti lu yiw mboolem ku jóg mooy la tey moo def lu jar tuubi noo ngi ci say loxo mel ni gumba yóbbu nu nun ban yegg yegg ba delluy andi kuy tuubi mboolem sunuy mbir a ngi jàppal baa jana yow di yor akay yéwénal nuy sant kay tuubi te may nu ak way ci yow mi way ba jiitu ku way wayal nu deng ba kuy way fu mu gis tuubi rikkil nu àddina mi fawit ci xol yi bu wér ba kenn du xëy ite wootis lëf lu dul tuubi àddina mi tekkiwul lëf waande nag li waral mboolem ñi gën di ci soxlas lëf akay tuubi kuy rooti ndox rekk lay wut waande day wuti goj wut baagamit door a jóg jëm teen akay tuubi ku sàkku ndab sàkku baaga goj baam te jógul daw rooti moo bëgg duniyaa ji na faxa tuubi kuy wut alal ngir fasoo koo toppe nag bakkanam yàllaa ngi gis la mu fas ay mooye yoo tuubi ku nekk yàllaa ngi gis nag pas-pasam ba mu fas ku fas lu bon na ko feccee jooye ku tuubi ngir yàlla kenn mënu koo nëbboo këréer ak wor lii tax ku yeewu di fas aw yiw akay tuubi lay dëgg nit ku am wér sant daa la ko war ngir nit bu woppee du tëllëf gaayi nan tuubi ku làq gën làq ak wér am na lépp lu gën te kat deseetul lu dul ak cant ku tuubi te donte àddina jéppit yaa ko yor te wéroo nga fab ko lépp wute wér ay na ngay tuubi ku bëgg lëf dafa am ak wér nde waaju amul ak wér du bëgg lu dul ak wér nanuy tuubi te ndaw su fiy soli yére mit ba wopp fi bis nga gis musummi ko jëndeg wér nanuy tuubi góor ak jigéen a fi yam kenn soxlawul ndare wér moo tax ku am wér na farluy sant kay tuubi alhamdulillahi rabbil aalamiina nanuy taqooki cant ak réccuy mooy akay tuubi alhamdulillahi rabbil aalamiina nanuy taqooki cant ak réccuy mooy akay tuubi yow ngeen ji wettalu bët te ngeen ji wettalu xol nekkal di wettalu saabat faw ak sama xol te donte waa penku ak waa soowu ñëw nañu tey ànd ak manit bu ñu tax mbég tàbbi sax sama xol saa gët yi nay ja ci yow saa xol bi nay ja ci yow saa cër bu nekk na lay bégloo ka daw ci ndigal bu nit ñi dee denc ay soxnaa ka fàggu dugub di jëndi fas aka war tey dox di denc alal naa denc man sa ngërëm tey fàggu naag sa ngërëm tey jënd it sa ngërëm yow mii te jàpp la jël naa raw ñi lay sopp raw mboolem ñi lay joxi yëf raw gaa yi lay jëfalit raw gaa yi kenn jotul te jox ma nag ite juy jëm kaw li kaw rëy rëy ànd ak wér ak gudd fan ak ndimmal ak rafetal sakkal ma buntu bu lépp xalsee te dox di ma lor te may ma nag lu ñu may soppee ka ñee yërëmal yërëm nu jaglenu yërmaandee ki yiw te dogal ci nun lu sedd sunu xol faw ful nu tefal baril nu yokk nu biir ak biti ful nu bu wér tefal nu tundu ngërëm ak barke faw defal may nooti jox nooti sellal nooti yeeti nu nun yeete ngërëm ndax nu far gëm laati yaa nu soxal gëm yépp nay dolli koo kay jëm kanam bu rafet tey tey yokku nit ñi sant jëf ak i xol ma wax fi ahmadu sekkub dénk tey jile nag ndax yàlla boole nu jox aw yiw fegal nu mbugal ma jox fi ahmadu sekkub dénk tey jile nag ndax yàlla boole nu jox aw yiw fegal nu mbugal te rikk ahmadu diglul lii ma lay bëgg a wax njegam danga bëgg a gën say kam wéyal ci ndigal ku bëgg a gën ay kemam day tuubi mooy bàyyi mooy te jàpp ab sëriñam màggal ko jox ko alal sanil lu dul yàlla yow mi jàpp yàlla bu wér te nit bu boppam ba weexeekat mu yàlla ragal jàppal juróomi bayit yi faw maa la ko jox te am sa too la ko sàkkul ngir yem la fa bal sëriñ bi marwaa ngi nuy jàqal fajal nu ko nag na taw bi dikk te ànd ak yërmande ti juréy waxal malaaka ma yor ndox mi mu dékkee nu tey ngir jëmmi yàlla ji ak yonen bi waa muy rëy njëgam sunu moyatee muy doxi di xëy naka taw yow yaa nu jiite te doo def lenn luy niru moy may masamba sëmbul ci géejug ban ba sangu ba set tey xuusa kay wéy ba fer def waaju yegg julab masamba sëmbul ci géejug ban ba sangu ba set tey xuusa kay wéy ba far def waaju yegg julab xuusal te wéy dëgg bul gajfal sa tér bi la yow ba noppi nag te setoo kuy wàlli làmb na ub daasal sa itte mu ñëw bay mel ni jeesi juwat ngay dagge ndog yi ni law bay dox di dagge garab melal ni gaynde ku mel ni gaynde kenn du la dog ngir képp kuy doge day daw gaynde mooy fu mu sab doo seeru ngën ji murit muy jóg di waaxu di wéy ba jonga may bari man man nag ba jóg di ko dab doo seeru ngeen ji murit muy nekk fenn di wax ba jonga may jóg di foo koy jëm fa booba barab ngeen ji murit fu mu jëm seytaane dootu fa jëm te jonga maa di ndawal seytaane ay bu ko nab loo xam ni day mujj na bis loola yow bu ko nab te jépp jonga ma joojis lee mu medd ba nëb sël-sël ja muy dëkke ak bun bun ja yow bu ko gis seetal ba muy nëb ba sax yey yàpp lex ya xajab bul gis lexam ya mu naa nes-nes ba tax nga ni cas sayit te jox ko ko kon boo dee sa lay wadu jub jigéen a doggaaya daawut yàlla maa la ko wax ngir moo di pett ngalub saytaane yow bu ko jub danga amew sas te yow sellal ko rekk la war bul génn sas wi di wut añ lee nga seeru sa ndab di jaamu yàlla bu wér tey toppatoo ndigalal sëriñ bi sas waa ngi nii kat bay ko yow bu ko tëb liy doy na wëllëre jàppal wëllëre ngi wuréy masamba sa dénk ngi santal ma yàlla te fab wéel bëggee jug sëriñ bi far la wan tërëx nga far ni meng ba nee faa bàcc wéy na balab tey làmb jaa ngi di gor koo seeru nag mi ngi tëb ngir bëgg ub yóbbu ndam yal nan ko ub te nga ub tey làmb jaa ngi di gor koo seeru nag mi ngi tëb ngir bëgg ub yóbbu ndam yal nan ko ub te nga ub bañul ayib yi le ngay yër yow te yër sayib ayib judul sa ayib jooje ayib du la lor bàyyil ayib yi le ngay yër yow te yër sa ayib ayib judul sa ayib jooje ayib du la lor njagam dangaa amatul nag jenn jenn ayib santal te foo gis ayib bul tudd yow bu ko yër koo gis amul ayibit buy tudd dal di ko am koo gis yorul ayibit buy tudd dal di ko yor ayib dafay wàlle bii rek biti wattu ko yow kuy dox di riisu ko njàmbal léegi léegi mu bor ku jàppulum njaamuram bay tudd nag sa ayib gërëm ko fam na nga neelam jox la yóbbu sa lor sëriñ bi ak darajay yonen ba ak darajay saxaaba yépp sarax muy fan yu gudd ak ndam sëriñ bi ak darajay yonen ba ak darajay saxaaba yépp sarax muy fan yu gudd ak gëm suntii si dund yi ak suntii si dee yi fabal joggaaye dul nun te may nuy jàmm nun ak i ndam suntii si tey ak ëllëg fam nan ko yépp sarax ku lay fexee lor akay dem foo bëggul ku fa dem fabal sa lor ak sunuy lor yépp jox ko mu ngëpp na yor sa lor ak sunuy lor boole ko ki loram lu nuy tawat léegi bii rek biti boole ko fab ak lun xaloo tawatit tabal ko lépp këram buubal tawat yépp ak lor yépp yan ko muy na bokk luy tax nu woppit yóbbaloo fu mu jëm mboolem lu bon lépp ak luy tax lu bon di nu dal may nan ko kuy sàkku sak suufee ka jëw ku la gëm nan jàpp tànk yi ak làmmiñ yi jàpp gu tar ku def nu dul nii ma wax day dal di loru te loru nan jàpp tànk yi ak làmmiñ yi jàpp gu tar ku def nu dul nii ma wax day dal di loru te loru te waxtu wi ndaw lu gàttum xel lu kenn yerul moo ci wëreeloo ko wax yeewul te dal di yaru jekkil sa kër jàpp sa njaambur te nëbbu bu wér koo seeru muy doxa kay wax ne ko yaa ngi xaru doxkat dafay yenu lor yit waa barab ba mu jëm buy ñibbi fab lori ñooñee yóbbu far asaru doxkat bu yóbbu wuli lor dellu seeki loram moyul ma ab doxa ku doxkat te def ku yaru dox am na kët njariñ ak lor waa ndefam njariñam ba fay loram te na jàppul ndax nga far defaru koo xam ne xam nga sa lor xam say njariñ mën a daw sa lor te fab say njariñ dox dootu tax nga loru boo mën la xàmmee sa lor ak say njariñ mënu laa fab say njariñ daw sa lor jekkee la war te beru bul toppandoo gaaya man ndox kon ñu mucc ngalab bul roy ci gaaye mënu ndox kon nga moy te xaru tuubal te wommatu sànnim xel te jàpp ndigal te jaayu ay jënde ko yiw kon te doo asaru jaayal sa dina jéppit jënde àjjana yow jaayu yaree diku jënde bi yar te dal di yaru jaayal xiyaasa ki xam-xam jënde def lu ñu wax jaayal kañaan ak rëy ak xër jënde ak defaru ganum njariñ gaa ngi tàggoo yal na fab sunu lor yóbbaale faw te dem del seeti fekk nu fi nun ñépp yal na nu teeweeti ñëwam bu rafet déwén te fekk nu gën fee tedd ëpple fi buy del si yal na nu fekk ak xol bu sedd aku yiw te fekk ay njariñ ak mbooloo mu jub bari fi buy del si yal na nu fekk ak may gu suuxali may te fekk nuy bari tawféex ak ngërëm gañe fi buy del si yàlla na mu fekk ak topp yàlla gu wér te fekk nuy dolli ku jub wépp yiw daje fi buy del si yàlla na mu fekk ak doole ak ñu ko am te fekk nuy mbër mu not mbër yépp faf tane fi buy del si yàlla na mu fekk ak doole ak ñu ko am te fekk nuy mbër mu not mbër yépp faf tane fi buy del si yàlla na mu fekk ak yàlla ak ngërëmam te fekk nuy gëm a gëm yokkoo ka am lu jafe ganum njariñ gi li muy xal seete ñëw ci kanam nun ñépp yal nanu koy teewee ka sant na fi diirub li muy dema kay ñëw noo gi nay dema kay ñëw faw nuy sellalug jaamoo ka xam di jëfe nun ñépp yal nanu wàccal wépp yiw wu mu am ba ñépp naa bu demee it aw yiwam jógu fi nun ñépp yal nanu wàcc ak jépp yërmande faf ba ñépp naa bu demee it yërmande ma ngi fi yow gan gi léemunu léemul bii barab sog a dem ba seen saytaane dootul dox ba fekk nu fi xam naa ni ak ñàkk maandoo bon te lëf jëru ko lu dul jariñ dara tey lor kay ku xam bàyyi ko kuy bëkk néegu lu muy jagloo ka sàcc ka mos du faj lu dul yët ko ay wàññik payam lori ko di sàcc kay mos ci loo moomul xamal ni du faj say aajo ngir aajo sàcc ak mos asal faju ko ak bëkk néeg ak i géej ak teen ak i dexeyam kuy bëkk néegu bu toppee bakkanam alaku ak bëkk néegu ku koy ngéejoo ko daw di ca jëm ab dof la rekk nde ak dex nit du daw wuti ko kuy bëkk néegu bu néewul jar yewwu bu wér te def ku sàmmi cëram ay dal ko yiw sori ko koo xam ni day seeru yëf yoo xam ni moomu ca lëf te bëgg cës lëf bu baaxul far ca mus moy ko sa kër sëriñ noo ca tàbbee rekk génne na yow bul génn kës lëf lu dul loo xam ni jox na la ko sa kër sëriñ loo ca gis ak kër gudul këramit muñal baam ca ndigal moo gën nga jalgati ko loo gis lu sew sew bàyyil ngir lépp loo mën a fab lu sew sewit dal di réy ak may du tuuti ba ko loo gis lu sew sew bàyyil ngir lépp loo mën a fab lu sew sewit dal di réy ak moy du tuuti ba ko murit lu dul sopp ab sangam te jox ko xolam akuk juram def la muy wax daw meram wëru ko as cuukar ak warga ak lem ak kafe ki dërëm ak lépp lëf lu la neeful fab ko sàggane ko kuy bëkk néegu juróomi yëf gënu ci mbiram sàcceeg dox ak xoole ak dig luy wax ak feni ko farlul te roy nag ci jibril ak kemam ya ca kaw kuy bëkk néegu ci ñii lay roy te dégg nga ko malaaka moo maandu moo am ngor te sell mbirit du fen du nett li ndéeyit am xelam daju ko malaaka moo maandu moo xam ngor te sell mbirit du fen du nett li ndéeyit am xelam daju ko malaaka yépp dañuy def tekk diglu ndigal lu yàlla digle ñu dal cay maase jóg defi ko malaaka menn du jóg def lëf te xam ni ndigal ñëwul ndigal du ñëwit muy deeti néggandiku sëriñ bi dëgg defal jikkoy malaaka ci nun ak gëm ga ak yar ba ak kattan ga yokkenu ko ak wér ga ak way ga ak sellam ga ndaxte nu am sa cant yow ñàkk am sa cant lëf jëru ko bu nuy dem ak bu nu jekkee yàlla yaa ngi fi yow te dénk naa la ginaawit ak kanam taxawal kuy tukki dénk la boppam ak këram dana bég ci boppam ak waa këram noongoogu far nu ñoŋal loo nëbbu dee su ko gis loo saytu dee su ko fab loo denc dee fu ca dem koo wattu lëf du ko dal doo gëm doo xefte doo sàggan faroo di nelaw doo fàdd doo wuute lëf luy am nga yëg musalal lu ñëw ci nun te du jàmm ak cant wàññi ko far mu dal di jëm ci ñu ni xañ jàmm kay xadadal te def nu xejjub sëriñ Tuubaa bu sedd xolam bu koy bégal faw a kay reeloo kasaxa ci ndigal ubbil nu wunti mbégam tàbbil nu néegi mbégam sunu diggante bu fuslëf am lu koy tilimal ubbil nu wunti mbégam tàbbal nu néegi mbégam sunu diggante bu fuslëf am lu koy tilimal te jàpp naa sama digg ak ban ba dénk la nag leeral ko neexal ko far sellal ko far ko jubal fu nuy nuyoo na ni teqat ree nu bokk di ree te bokk sant mu seddub xol seral sunu xol def nu laram def nu ab soppeem akub xaritam def nu loxoom it bu muy tibbee ka sex di sexal def nuy gëtam faw ak i tànkam te boole nu raw nib goñ nu def kenn kuy rusloo juróomu kurél def nu xolam faw ak i noppam yu dégg ndigal te may nu nag ci ngëneelam ak way ak rafetal te def nu boppam te def nu làmmiñam wu rafet mboolem lu muy aajo léppit naa ko cay taxawal bakkan bi nee na ma bis moo tee nga tukki te woo nit ñépp kon danga am aw nit te doy la alal ma dal di rus te torax ngir gaaya daa dawu nit tey bañ alal ak nëbboo kay yërëm te lu njël koo xam ni kii la ko war kon wàcc ñépp ni mes bu man la def loola it wootee ka tukki warul njëgam dama bon ba mboolem nit ñi gën ma du tee may sopp gaayaa ka waxtaanee ka wax nañu mel gaayaa ma saf ñoo ma duggit ñoo melit na ma saf seeni wax ak seeni jëf waamee njariñ la ci xol koo gis ci ñoom a ngi def duniyaa ni medd mu nëb di soxla woo yàlla ak yonen ba tey rafetal ñoo dund ñoo dundi xol ñoo tax ba bépp jullit xolam di dund ba tey yi gaaya sotti asal bul wax ni man bala ma waxtaane mbër ya di mbër ngir kenn du juddu di mbër wax jaa ngi nii xalama kuy ruuja kay bay dafay waxtaane dàgg yu rëy ndax dàgg yoo yële ñoo koy soñña kay sawaral waxtaane yàllaa ki gaayam yiwu nit masa am xamal ni kët ca la juddoo yow murit bi yëgal waxtaane duniyaa ki gaayam bon gu nit masa bon yëgal ni it ca la juddoo yow murit bi xamal boo mën la def yow lu baaxit dee ko bëgg a ko wax bul bëgg àddina bul wax wax ju génn ndigal bu kenn dégg ci saw làmmiñ lu dul wax yiw bul jóg sa kër ngir wutiw nit rekk mbaate alal musal nu ci dee faw ak loram yow ki bind dee teer nu fi nuy jaamoo ka sant ba àjjana musal nu ci dee faw ak loram yow ki bind dee teer nu fi nuy jaamoo ka sant ba àjjana lu dul jàmm biir ak biti yal na mu ump nun te yal na nu lumpit lépp luy mbég ci àddina te yal na mu far mboolem lu di wiiw teeg ëllëg ni ma lum di xoolee kay gërëm yàlla sotti na bu nuy dox ba fiirootee ku ay mukk fis mbarab nanuy mucc kay juuyoo ko ay man gi landi na bu nuy mën a jëm ciw ay bu ay mën a jëm ci nun naay teggi biir ak biti ay wépp teggi na bu lor ñëw ju jaamu yàlla def mbaa ju yàlla def defal sunu lor loo xam ni lii ak amamte na defal nu ci barkeb gaay yi ka fi sunuy nelaw mu gën wird fapp ak julli goo xam ni sell na te may nu ci barkeb gaaya teewe badar te muñ karaamaaki ndam yoo xam ni yéemu na dégtu na te may nu ci barkeb bépp yonent ku nitam lu yombul lu rëy loo xam ni waare na màgg na te may nu ci barkeb bépp sanga ki gaayam it ngërëm dëgg loo xam ni faram wéy na jomb na te may nu ci tawféex ak malaaka mu aw ndigal wilaaya gu wér goo xam ni tandu ga ëpp na tër mu ci sag baax ak saxar baaxi bopp nag nu des fi di dundal diine rekk ba àjjana dangay may rekk wiiw ku ñuy dégg yaa ko may te yaa may ku ñuy gis ndolle nag may gu sedd xol dangay may rekk wiiw ku ñuy dégg yaa ko may te yaa may ku ñuy gis ndolle nag may gu sedd xol malaaka ya ak yonneen ya yow daala tax ñu am lu rëy lañu am baaxal mu may nu ci ñoomi pal saxaaba ya ak mboolem wali yu yaa waral ñu mel ni ñu mel faggul mu taw féex akuk jubal sëriñ sépp sépp ak seeni taalibe yaa waral ñu raw seeni kem jël ndam faral jox nu ndam nu jël ñi xam ñépp ak mboolem ñi am ñépp yaa waral ñu xam am te sikkoo lii ma lay wax ku lay manal fulaf nekk yaa tax ñépp ndab lañu koo ci duy mu fees ak njariñ feesal nu dell ak lu nuy bégal danoo bég ci yow ngir bind gi nga nu bind nun ba noppi xamal nu si lëf ci yow ak ci sab dogal gërëm nanu ngir sax gi nga fi sax te doo fi jóg ni deng ak sa nguur ak say njariñ ku la saf nga fal asal yaa di buurub dëgg dëgg bu ñépp xam jógoo fi ma soofee jóg te doo fi jógit asal lu man di xew ak luy am te deewoo du yen ma ay musal nga nu ciw ay fawu yal na nga nuy musal lu dul mooy la rekk ak yow mu dee jàmm laa ko yiw fegal nga nu sag dee sag moyit bu mu ñëw fegal nga nuy mucc ci mooy ak lu bon ni nga mucc e sàkkul nu xar baaxi mbég yu tal te mboolem lu nuy jañ yal na dem dem gu sedd xol lu nuy ñoddi léppit yal na ñëw ñëw gu sedd xol la yàlla xamoon ci cant yal na ko boole fab ni xëpp sëriñ Tuubaa seral cab xolam gëriif la yàlla amoon ci cant yal na ko boole fab ni xëpp sëriñ Tuubaa seral cab xolam gëriif te yal na ni yëkkat xeetu mbég wu ma see fa xam ni xëpp sëriñ Tuubaa fa bu mucc faf ca roof te yal na ni sojjat jàmm ak yërmandeeku yiw ni xëpp sëriñ tuubaa merum ku ko sopp giif te yal na ni ca xeetu njariñ wu ne ak ngërëm ni xëpp sëriñ tuubaa mu faf gañe ñépp fuuf te yal na ni denget benn dog bu ñu naw bu rëy ni xër sëriñ tuubaa mu far jël dogam bu duuf te yal na ni ñokket sëq ay may yu xel dajul ni xëpp sëriñ tuubaa mu nanguy mayam te wuuf te yal na ni ca xiiwal yu dul jeexatee ka deñ ni xëpp fa tuubaa daq faw ay soril fa xiif te yal na ni tegget jépp naa tànge ak lu lew ni tegg fa tuubaa ndax ñu woomal ba kenn du lor te yal na nu xëy fab fab jumaa jan bokk jóg ci barkeb sëriñ tuubaa ki jëm kaw te sax fi suuf te yal na nu roofit barke ak xam-xamum njariñ te def nuy jullit nuy gaayu gëm yu ñu roofa roof te yal na ni sippet lépp luy am njariñ ci nun te jëkk ci nun lor jox nu faw nu duy sëriif te yal na nu jañ wërsëg wu àddina jépp xaj wulew ndax nu faj cay lor seral cay xolit gëriif sarax nga ña daayal waan ñépp ba koo ci gis mi ngi saraxee kay sant yal na la yàlla fay sarax nga ña daayal waan ñépp ba koo ci gis mi ngi saraxee kay sant yal na la yàlla fay te yal na la nangul jépp jëf joo masoona jëf musal la ci tiis ak lor yu bon yépp faf la mooy sa ngir mi la yal nay dund faw ak saf xoram sa taalum ngërëm bi takk faw te dootu fay sa taalum ngërëm bi yal na takk bërëx ca kaw ñu soññ ña cay jaaroo ka teggi ñu lagg wéy wutal nga ku nekkum ndox wutal nga ku nekku ñam wutal nga ku nekku fas fegal nga ku nekku ay fegal nub layoo faw ak la koy jur ba ñuy layoo na fekk nu jàllañ mbég nga faf nu layal ba yey lu dul sunu mbég nay kumpa faw ci nun gu réy nanuy ump lew ay faw tey lump faw wi may lu dul jàmmi biir ak biti yal nanu dégg doy ca loolale ak béppub jullit bu nu bëgg cey na jàmm di nun nuy jàmm faw ba xam ni nun fu nuy neeti faf diglee mu naggu fa yàlla suy sunuy jëmm yàll nay jëmmi jàmm tey ak ëllëg di mucc ak njariñ diglee mu dëgg gu rëy gu doy kayor wépp yiw ak mépp mbég yàll na faf ni cas yiwam yépp ak mboolem mbégam yépp jox la tey jaxas nga bagaanu cant teg can ndawal gu doy ni cas teg fi nun nuy sant yàll na la yàlla fay danoo fab sunuy dab ak sunuy saaku jóg di wut ndox ak pépp faryam cig dex ak dàggamoo lu des danoo fab sunuy dab ak sunuy saaku jóg di wut ndox ak pépp faryam cig dex ak dàggamoo lu des way ak itte ak gëm yàlla ak yeewu ci nelaw di santaka tuubu mooy yëgal yow ni lii ci des ku ñibbi di xaaraane karootaani moo ko dof dugub jaa ngi dex gaa ngi te loo fab fabit mu des ku dee sax fi dex ak dàgg moo gën ku dul gore di bojjaana kay rootaana kay dox di xaaru des fabal ci dugub ji ak ci ndox mi la yóbbaloo ba foo dem ñu naa dàggaa ngi ndox maa ngi noo ci des defal yow ku ay bokkam dina ma ko bëgg a gis mu naa man damay am doora ñëw mbaa ma far fi des dangay xare boo dàqee ñu wax boo dawee ñu wax faral dàq jël ndam am ngërëm mbaa nga far ca des te dund gu ànd ak gàcce far dee ko gën ci nit na ngay wut ba am baanee fi lii yàlla moo ci des ku gën ay moroomam wuññi kuy wut bu dee mu doy dawal jiitu bul nangooti gaa yépp dem nga des te koo xam ni yow loo daw dawit sax du tax nga raw la ngay dox di daw moo tee ba ñuy daw nga far fa des ku daw yàlla loo daw daw asal doo ko nam ma raw murit buy daw coono ka bañ muslu koo ca des ku wàccu sa sam fëx daw te def ku ñu yar bu wér ñu jàpp ko delloo ciw sa sam ku ñu yar du des te jël nga nu mboolem wunti lor yi ba yépp daj nga ubbil nu mboolem wunti yi ba yépp daj tëjal nga nu mboolem wunti lor yi ba yépp daj nga ubbil nu mboolem wunti yi ba yépp daj falanga lu nuy jaaxal ci àll mu far ni mes nga ñoddi sunuy mbég yët nu aajo yi yaa ko faj lewet nga ci nun boddoonu wan nga nu sag yéwén te wàcc ci nun yërmaande dex nga gu ñépp xaj leet nga ci nun boddoonu wan nga nu sag yéwén te wàcce ci nun yërmaande dex nga gu ñépp xaj te nee woonu casteg féete naa bu fa kenn ñëw dangaa yaatu yaatal ñépp foo nekk ëpp gëj njariñ nga ci mboolem nit ñi yow daa la ñàkk kem ku aajo nga faj mboolem ku wopp nga dal di faj asal yaa di koomum yàlla yaa di ngënee lamit te yaa saytu buntam booya boo tijji mbaa nga tëj te xëy nga nu tijjil may nu mboolem sunuy mébét ñu xëy dinu ñee nuy dolli kuy may te kenn du faj ndaxam noo gënum xëy képp koo xam ni kii du nun ku xëy ku la gën sab xol du lakk sa mbir du lëj musal nga nu ci mbaadoo la jox nga nu pal gu rëy ku dul yow du mbër xam naa ni yow daala mat ni kaj ku dul yow bawul góor ak jigéen ak këram ni mes ci àll ba ay at kenn dajul mbàkke lii nga daj ku dul yow du fab xaalis di sànni ci biiri dex la sang ya daa jeexaata kay lamb yaa ko daj yowit ñi la fiy jeexaatu yal nañu for nu for ñi lay dox di lambit ñépp yal nañu bokk daj saxal nu ci péey bi yàlla xejjal nu faw nag te fàggul nu fawub sañ-sañ ak fan wu gudd lool saxal nu ci péey bi yàlla xejjal nu faw nag te fàggul nu fawub sañ-sañ ak fan wu gudd lool te may nu ci jibriil ak way ak wóolu ak ngërëm akuk jagle ak tawféex akuk jub gu yéemu lool te may nu ci Mikaayil la xiiwal yu dul séwét yu sax dàkk dàkk ak jàmm joo xam ni rëy na lool fegal nu ci Israayil la fawum ndog ak tawat te bii nu ngëneel ak cant dëggu sedd lool fegal nu ci Israafil la lax na xi bépp bis te mboole sunuy bis yépp teeyal teral nu lool fegal nu ci Israafil la nax na xi bépp bis te boole sunuy bis yépp teeyal teral nu lool sarax nu ci sag baax ak malaaka mu aw ndigal lu sedd xolum mboolem ñi teew ak ña wuute lool sarax nu ci barke bépp yonent ak wu nitam teraanga ju dul dañ mukk mukk ju màgg lool sarax nu ci xar baaxug waliyuwul ak ndam ndam ak suturaakub xam-xam ak raw ñu raw ña lool sarax nu ci barke bépp sang ak ña koy dawal ngërëm lu ñu dootul farate faf di ko yokk lool sarax nu ci barke képp kuy gëm a kay jubal rafet njortu faw ak jëf ju réy ju ñu nangu lool tërik joxal mboolem ku lay sopp ab sarax bu doon ak njariñ loo xam ni saf na ko sàpp lool te jox ku nu sopp jànk boo xam ni faj na lor te faj aajo faj gépp tawat faj gu waare lool sëriñ baa ngi ànd ak nun di xool ak sàmm daal ku jëm ci nu nag loo xam ni neexul mu femm daal sëriñ baa ngi ànd ak nun di xool ak sàmm daal ku jëm ci nu nag loo xam ni neexul mu femm daal ku jëm ci nu nag loo xam ni jub na mu teg ca kaw demu fenn kuy def lëf ba tey jii mu fay ko daal dañuy niru jurgub sàmm nekkul te wépp rab wu cay bëgg a def lëf sox ba tàkk mu daanu daal te sàmm bu deeful seeru lëf ndare ab soxam gone koy ñemeñ toy ñeppa moytu juram gi daal deful tey ku ñuy riisoo ka teg bët di wax mu wax gëm ak xol a koy riisoo ka gis wax mu tontu daal gëm ak dëggal ak wóoloo la cay yeggaleeti tey ku làmboo fena njistal du yegg ca yàlla daal ci yàllaa ku yonentam ak ban balaa jëman di yóotu lu may yóotoo ka ñoddee ka fiq daal bu may kër-këree kay fiq kay ñoddi saa su jot ba dee mbaa ma am saaxol bu sedd ma sant daal ku xam goj bu jot moo jaana muy fabe ab gojam di fas ci beneenu goj di saf waaju mànki daal ku gis fu mu jëm moo jaana muy fabe ay biram di jébbal moroomam ñuy werantee ka xaste daal ku jëwriñ joxu sas sas wajeexul lu muy doyee te kuy sas aku sas xam xanaa ñàkk ful la daal lu nuy jaamu biir ak biti yàlla na ko yàlla fab te boole nu faw ak ndaw si gën ndaw su nekk daal lu nuy jaamu biir ak biti yàlla na ko yàlla fab te boole nu faw ak ndaw si gën ndaw su nekk daal mu ñaanal ki xëy jébbal ma mboolem samay mébét te def loowu mës la fi yàlla na am lu mu daa mébét ma ñaanal ki xëy dàqal ma mboolem samay tawat te nattu mas la fi yal na bég sori ak tawat ma ñaanal ki xëy sàngal ma mboolem samay ayib te wuñ yiw mas la fi yal na am pay gu ëpp bët ma ñaanal ki xëy feesal ma dell ak lu gën wurus terus loowu mas lëf yal na am tono bis bu set ma ñaanal ki xëy doylul ma jox may njariñ yu doy te janniwu mas lëf yal na taawulu deeti wut ma ñaanal ki xëy jébbal ma barke bu réy bu sax te laajuma aslëf yal na am may guddul sewet ma ñaanal ki xëy jébbal ma wërsëg wu yaawu lew te bodduma aslëf yal na yaatu ci gépp wet ma ñaanal ki xëy jébbal ma mbooloo mu dul tawat te yàqul sama der yal na làq lu réy rafet ma ñaanal ki faj saa aajo faj sama jépp lor te wéeruma fiw nit yal na léppam rafet te mat ma ñaanal ki tee gàccee ko ay dal ma dal gu wér te jàpp ma wéng may wonku yal na ko jàmm jot ma ñaanal ki faf ñaanal ña koy soppa kay gërëm ñu am yàlla am yonnen ba am ko te bokk set ku xëy may la boo lottee ci fay ko jógal gërëm te ñaanal ko ngir ñaanal ngërëm war na képp nit sëriñ ba ca tuubaa rekk a tax wax ji jépp jóg ndemoo woote jox mboolem ña koy wuy si lañu mébét sëriñ ba ca tuubaa rekk a tax wax ji jépp jóg ndemoo woote jox mboolem ña wuy si lañuy mébét subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin